laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax nin ko ànde woon ak yenn suba ak léegi ci uh, bis bu tedd bi nga xam ne ni bisu zikru laa la sëñ Mountakha Mbacké joxoon ndigal njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall ñu tàmbali woon ko suba ak léegi. xam ngeen ne biñ ko tàmbalee ak léegi euh, ñu ngi doon zikr ba juróom-ñetti waxtu ci ngoon gi sikar si nag ni mu demee woon xam ngeen ne lu tollook juróomi kuréel. ñoo ngi tàmbali juróom-ñetti waxtu ci suba gi ñooñ nag ñu ngi fasantikoo ci diggante seriñ Seckou Sakho Baye moor Ndiaye Serigne daam Ndiaye Serigne Cheikh Ndoy ak Serigne Mbaye Fall mi nga xam ne ni moom moo tëj si waaye euh, xam ngeen ne ci la sëriñ bi daal di génn ci kanamu kilifa Baye fal yi waaye bala ñuy àgg ci discours yu am solo yooyu ñu defal leen benn taxaw seetlu bu am solo boo xam ne nii dundandoo nañ koy ak yéen ci bisub tey bi ni leen ko waxee léegi rek muy fukki waxtu ak ñaar yu teg fanweeri simili lépp ñu jagleel ko la ilaha illallah zikrullah ci njiitug njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gannaaw loolu itam gis nañu ne liggéey bi yaatu na te nosu na fépp foo xam ne ni doomu aadama mu ngi fi ci biir euh, réew mi ak bitim réew waaye ci biir daaru mi nan ak li ko wër yaa ngi ko doon seetaan di ko dégg li ko waral nag nekkutoon lenn lu am nosu boo xam ne ni def nañ ko ci wetu audiovisuel ak li nga xam ne ni moo di sonorisation lu jëm ci wàllu reportage yi lu ëpp juróomi équipe yebal nañ leen ci ay bërëb yu fasanti ko ñu dem dafa liggéey bu am solo ci ay reportage indi ko ànd ko ak yéen waaye naka noonu itam ci wàllum teewaay gis nañu wàllum sécurité maanaam kaaraange teew nañ bu baax a baax ci teewaayu waa police ak yeneen sécurité yi nga xam ne ni ay sécurité privée lañ ànd ak mbokki Baye Fall yi mën a def liggéey bi ba mu mucc ayib gannaaw loolu itam lu jëm ci wàllum bernde kenn demul ñu des tàmbalee ko ci li nga xam ne moo di ndekk yi ay daayira yu fasanti ko andi nañu ay xéwal yu yaato yaatu jox ko mbokki taalibe yi ginnaaw loolu itam gis nañu ne mboolem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall teew na lu tollook fukki buntu kër ak euh, benn ak cheikh si ak taalibe ñoom noonu teew si nan ñëw wuyu si woote bi nga xam ne nii Serigne Mountakha Mbacké woon na ko mbokki taalibe yi ñu daal di euh, ñëw ngir nag euh, ànd ak euh, moom liggéey Serigne Touba Cheikhul Khadim bi loolu du lenn lu dul zikur la gannaaw loolu itam wàllum cet wàllum ndox lépp matale na mën nañ ne daal mboolem secteur d'activité yi nga xam ne nii waroon naa am fii ci Daaru nan amal nañ ko ba mët sëkk ba liggéey bi daal di mat sëkk gannaaw loolu nag xam ngeen mbokk yi ni ko waxee léegi. ci la sëriñ Muntaxa daal di génn ci teewaayu mbooleem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu fàttali leen ko toll ci fukki buntu kër ak benn ak cheikh si ak taalibe yi sëriñ Fallu Fall moom sëriñ Modou Aminta moom la ñu jox kaddu gi mu daal di tënk li nga xam ne nii mooy di kaddu yi kaddu yi nag la ca gën a fës bokk na ci jëmale seenu cant ci kanamu sëriñ Muntaxa cant yi nag la ci jiitu du lenn yee salaat seen ak jaayante na ko seen maam defoon di maam Cheikh Ibrahima Fall digganteem ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye ci biir kàddu itam soññ na mbokki taalibe yi ci ak dal ndax ak taalibe rawatina ab Baye Fall bu nekkee ci kanum sëriñam moo akum néew ñoo war a yem sëriñ bi ñëw na ci loolu ni mu yaatu waaye nag ñëw na ci njariñ li nga xam ne ni zikru la am na ko rawatina nag ci bisub tey bi nga xam ne nii euh, yennoo nañ ko di sant Serigne Touba Cheikhul Khadim di bàkk suñ borom jaarale ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall ñëw na itam ci jëf ji jëf lu rëy te tegul ci ndigal daanaka mu ngi noonu waaye ñëwaat na ci jëf ji waaye ci ndigal li nga xam ne nii euh, daal di na ko euh, daal di na ko tënku loolu tax na nag ñu am ci dalu xel ba ne lépp loo xam ne nii ñu ngi koy fas di ko ñaan di ko wut bisub tey bi may na kon lool nekkoon kàddu yoo xam ne nii Serigne Fallou Fall moom moo Modou Aminta mi doon wax ci turu xalif général de Baye Fall wax na ko waaye sant na nag mboolem mbokki Baye fal yi nga xam ne nii teew nañ ci jëf ji nga xam ne nii indi na ko waaye santaat na bu baax a baax Seex Muhammadul Muntaxa mi nga xam ne moo fi Serigne Touba ci euh, ndigal li nga xam ne ni saa su nekk mu ngi koy jox Baye Fall yi waaye day feddali diggante maam Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gannaaw loolu nag ci la Serigne Muntaxa Mbacke daal di jël kaddu gi. kaddu gi mu njëkk a wax mooy alhamdulilah di kaddoog cant goo xam ne ni jëmale na ko suñ borom waaye nag jëmale ko cheikhul xaddim yaakaaram jaarale ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne ni tey jii ak njabootam ñoo yendu di zikr ginnaaw ndigal loolu nag sëriñ bi wane na ci mbégte bu baax a baax xamal Baye Fall yi ne leen am na ci mbégte te itam dégg na kaddu yi nga xam ne nii bàyyeekoo na ci ki doon wax ci njabootug maam Cheikh Ibrahima te kaddu yooyee ànd na ci ak ñoom sëriñ Touba mi nga xam ne nii moom la ñuy jëfal moo a dégg ànd na ci ak ñoom dikkaat na itam ci njariñu Zikrula euh, Zikrula nekk loo xam ne ni lu am solo la sëñ Muntaxa ni mu ci dikkee yaakaar naa ne mën na sëkk gannaaw loolu daal gën naa yëkkati ay kàddu santaat suñu borom tabaraka wa mi nga xam ne ni moo ñu baaxee Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye santaat maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne nii tey jii liggéey bi ci ak njabootam lañ ko daal di jaarale kon mbokki taalibe yi ren ji nekkoon ñaareelu édition Zikrula tey nag tombé woon ak alxemes Euh, juróom benn fan ci weeru juillet atum 2023 dëppoo woon ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tabaski wi atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay gi ñu àndoon ko ak yéen suba ak léegi fii ci résidence Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Khadim Rasoul ci teewaayu xalif général de Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha ginnaaw bu mu joxee ndigal li xalif général des Baye Fall mboolem njaboot gi teew fi ñu àndandoo ko di ñaan daje ci ngërëmal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. liggéey bu am solo bi tey jii bu ngeen gisee mu tasaaroo yaatu ci biir réew mi ak bitim réew fasantikoo ci télévision yi ci rajo yi. ci réseau sociaux yi ci YouTube yi ak internet yi xam ngeen ne ak lëkkoo ak and ak booloo gu am solo moo ci am loolu nag dañ ciy jaajëfal ki nga xam ne ni moo di Serigne Assane Mboup ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne ni taxaw na ko ànd ko ak mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne ni dañoo nekk Touba biti Touba di yëngu ci wàllum audiovisuel gis ngeen bis bi nu ko wootee ak léegi tey nag deuxième fois bi ku nekk ci ñoom def nga sa manin andi nga sa yéene ñii indi seen i matériel ñii indi seen i jëmm ñii andi seen xam-xam lépp ñu boole ko nag liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall ba tey jii liggéey bi yaatu fépp fu mbokkum taalibe nekk ci àdduna man koo seetaan noonu lañ ko gisee itam ci sonorisation ak mbooleem yeneen bànqaas yi nga xam ne nii moo xam muy ay mbooloo yu fasantikoo ci ay association wala ay daayira am benn yéene liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ba laq ngërëmam kon ñoo ngi jaajëfal mboolem waa média waa presse ñi nga xam ne ni seen ub liggéey macha allah cheikhul xadim rek lañ ko seereel yàlla nañ ci daje ak ngërëmam jërë ngeen jëf